bismillahi rahmaani rahim wa kun muy salana min sari siansadin ma sari famin wa sarin ayni yàlla wa sari sirin wa sarin xalqim sihima man jinim wa zawatin sàmmi yàlla ñi ngi dellusiwaat ak 24 actu point com euh, site bi nga xam ni bu am solo la buy liggéeyal sëñ Touba liggéey bu yaatu ñu ñëwaat fi nag euh, defoon benn waxtaan boo xam ne dafa jëm ci tukkib sëñ Touba ci géej gi mais nag étape gabone bi ñu gën cee incité ndax comme ñun foofa la ñuy dund bëgg a waxtaanee nag li nga xam ne dund nañ ko fa ci euh, gis nañ ko fa ci ay découverte ci lu jëm ci tukkib sëñ bi ci Gabon kenn ku ne xam na ni dinañ jaaraat rek ci fi sëñ bi jaar ba ak Gabon ndax dañuy insisté ni sëñ bi laata mu dem Gabon jaar na kongo jaar na tamit ci dëkk bu ñuy wax Angola ci ville bu ñuy wax euh, enclave di Cabinda de Cabinda aussi jaar na ci benn dëkku Zaïre bu ñuy wax Boma ak Matadi door a def nag moom sëñ bi nag mu door a def nag euh, retour bi nag ñëw Gabon Euh, ci ni niñ ko bëgg a leerale léegi euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe yi mbokki jullit ñu ngi leen nuyu di leen di jiital ci nuyu bi sëñ Muntaxa euh, xalifatul am fii tarixatul muridiya di nuyu sëñ Cheikh Jëmb Fall di ci toftal nag sëñ Cheikh Ndigal suñu wasiila ci yoon wi bu ko defee kon nag ñu ngi koy nuyu di jaajëfal di nuyoo tamit uh, waa Gabon ga nga xam ni fa lañ bàyyi ko uh, ci raxas daayira xasida Awande Konté et uh, mouvement bi nga xam ne moom la ñuy wax caravane sur le trajet de Cheikh Ahmadou Bamba comité bi nga xam ne ñoo ko yor di nuyu tamit waa Thiès gi nga xam ni fii ci Sénégal falaa féete ci njaboot gi ci biir kër sëñ Cheikh Fall Baye kon ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar euh, dikk nañ tey ji bëgg tënk rek tënk bu jëm ci tukkib géej gi dina xaw a am nag ay suppiku ci niñ ko baaxoo waxtaane ndax lu ñu dund la ñuy waxtaane waaye du nettali boo xam ne day tukkee ci rek euh, loo xam ne dañ koy gëstu ci beneen fànn euh, maanaam sëñ tubaab bi nga xamee ni yàlla dogal na niñ ko xamee ci mu yoonu murit feeñ na atum 1800 95 euh, euh, amoon leen te woon naag tubaab bi euh, boo xam ne mi ngi jógee Mbacke Bari gi nga xam ne daf ko sancoon jóge Touba muy dëkk boo xam ne dafa doon dem di xaar nattu bi nga xam ne signante woon na contrat bi lu jiitu loola ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jàkkee daaru Xuddoos xam ne ni war naa liggéey liggéey bu yaatu. bu ko defee nag Mbacke Bari googu mu jóge fa moom sëñ bi ci tënk bu gaaw rek daje si ak nasaraan bi ci dëkk bi nga xam ne moom la ñuy wax jéewal. état bu jeewal nag comme foofu la dajee nag ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon jëli euh, moom sëñ bi euh, foofee rek la tàmbali ni wax ni billaahi faaraxtu nazara jeewali wa xayruwa xatan bi laa tawan mu mel ni kon euh, jeewal googee nga xam ni fala la tuwaa bi moom fa la dara wax ni suñ borom dox na digganteem ak ak ak ak ak nasaraan yi ba joteetun dara kon nag kon léegi ci coobareem lay tukki moom sëñ bi coobareem boobu muy tukki nag suñu borom wutal na ko nag ay gaar ay kaaraange yu mat sëkk ndax kenn ku ne dégg na moom Cheikhul Khadim ni muy waxee ni suñu borom euh, euh, jariñ na ma jariñ na ma njariñ loo xam ne lu jëkk may may ñëw ndar la bi ahlil badri usuudu kadari mu mel ni kon ahlu badr googee foofee ca jeewal lañ feeñe nag ànd ak moom mosuñoo tàggoog moom di ko fegal ay lor ba fani état bu ndar bi fan yi mu am ndar ci tënk ñoom ña nga fa nekk doon wéttalam bi muy wéyee dugg ci gaal jëri gi noonu saxaar soosu jëm ndakaaroon ñu ngi ànd ak moom mosta tàggook ñoom ci tukki bi yépp mu jaar ndakaaru euh, jël jëlee foofee gaal gi nga xam ne moo ko yóbbu Conakry jaar ak moom Grand Bassam ci Côte d'Ivoire jaar na tamit dëkk bu ñuy wax Dahomey ci Bénin muy dëkk boobu ñu naan ville bi ñuy wax Porto-Novo ginnaaw bi nag ci lay jubali Gabon bi mu demee Gabon nag ci dëkk bi nga xam ni njëkk na faa jaar moom la sëñ Moussa Ka di wax Kablo-Bissa Kablo-Bissa nag moom euh, actuellement mi ngi nekk ci dëkk bu ñuy wax Port-Gentil mais euh, Kablopès lañ koy wax muy ba muy barab boo xam ne tey jii boo demee euh, def nañ fa ay yu bari muy barab boo xam ni gaal yi mënuñu ko mënuñu ko contourner ndax dañ fa daan jaar di fa ravitailler seen i gaal mu am phare boo xam ne tamit da daan guider bato yi pour ñu mën a jël seen trajectoire normale su ko defee foofu nag bi fa sëñ bi jaaree nag ci la continuer nag euh, jëm Congo bi mu continuer jëm Congo nag euh, noonu la sëñ bi demee jaar ci dëkk bi nga xam ne moom la ñuy wax euh, Pointe Noire nga xam ne jooja jamono Luango lañ ko doon wax Pointe Noire boobee ba sëñ bi demee nag ci Pointe Noire maanaam fii la dëkk yi sëñ Moussa Ka di lim yu bëree bëri nekk ndax foofa fii la dëkk bii ma njëkkoon a tudd léegi muy enclave de Cabindané nga xam ni bëri na ñu ko xam ndax mooy dëkk bi nga xam fa la fa la Jonas Savimbi bi nekkoon di guerre ak Dos Santos lu yàgg-yàgg muy loo xam ci Angola la bokk mais nag dafa tafu si ci Pointe Noire bu enclave boobu nag bi ko sëñ bi rombee nag ci la romb nag beneen dëkk bu ñuy wax banaana sëñ Moussa Ka indi na ko soo xoolee ci map bi di nga ko gis ci carte bi bi mu jàllee banaana nag foofu la am benn ndox mu ndaw mu ñuy wax fleuve Congo sëñ bi daal di wàcc ci gaal gu mag gi mu nekkoon na ndax mënatula daw ci dex gi ndax tuutiwaay bi dex gi tuuti te dragué wuñ ko mu jël gaal gu ndaw goo xam ne nag moo romb ak moom ci benn dëkk bu ñuy wax Matadi moom ci Zaïre la bokk rombaat beneen dëkk bu ñuy wax tamit Boma ci la jubalee ji nag ci dëkk bi nga xam mooy Brazzaville pourquoi Brazzaville Brazzaville booba gouverneur bi nga xam moo nekk Afrique centrale booba fa la nekk te kooku moo mën a joxe décision bi nga xam ni moom mooy moom mooy taamu fi nga xam ni fa la ñuy yóbbu euh, sëñ bi kenn ku ne xam na ne nag lu jiitu loola ci 1875 Savargnat de Brazza moom découvriroon na defoon na ab exploratoire dem ci Gabon découvrir dëkk ba àndoon na ak ay sénégalais àndoon tamit ak li ñuy wax Soudan français muy actuel Mali bi ñu ba ñooña doon fa exercer ñoo loolu moo waral ngay dégg ci biir tukkib sëñ bi ay Doudou Mambay ay Sidi Mabo ay Blaise ak ñoo ñëpp Saint-Louis moo doon affecté Brazzaville ay fonctionnaires ñoo ñu mu doon affecté nag ñoo ñu la sëñ bi doon dajal noonu ñuy dégg seen tur yi ci Gabon ak ci ak ci Congo bi nga xamee nag gouverneur bi nekk euh, Brazzaville yot nañ ko sëñ bi nag ca booba jamono Gabon doon àll boo xam ni euh, population ba fa nekkoon bu ñu matee trois cent mille personnes sax ci la ñuy war a yem ndax actuellement may wax ak yéen ni population Gabon est estimée à deux millions de person ci territoire boo xam ni mat na ñaari yoon Sénégal kon bi nga xamee ne nag sëñ bi. kooku décidé na ngir yóbbu ko fa ndax xamoon na ni Gabon am na île yoo xam ne ba tey jii kenn dëkk fa île yi mën nañ cee cité lu mel ni îlu Mayomba boobu nga xam ni fa la sëñ bi sax juróomi at mën nañ ci it wax it îlu Lambaréné mën nañ cee wax tamit lu ñuy wax île de perroquet nga xam ne ab île la boo xam ne ba tey jii bu ñu xam la ci Gabon ñu fay napp perroquet wu gabon yi nga xam moom la sëñ Moussa di wax île de Burki boo xoolaatee xañ na mbind mi ah, mën na ci am loo xam luñ mën a seetaat lay doon waaye boo demee gabon daal te bëgg a gis gëstu île de Burki île de perroquet ngay laaj te foofa la sëñ musaa ne foofa la coyee nekk làkki français surtout ay sax te coy mooy seku kon loolu wane na ni sëñ Moussa leeral na ko moom da doon woy daal waaye yi mu woy yëpp daal effectivement yu am la yoo xam ne yu nit mën a gëstu gis ko la am na tamit île de Ndiolé nga xam ne tey jii foofa lañ suul Samori Touré tuddee ko île ba nga xam ne mooy îlu Samori boo nemee njole loolu ngay laaj ilu Samori léegi nag bu ko defee kon euh, loolu nag bi nga xamee ni jëlee nañ Brazzaville sëñ Touba nag jaarale ko ci gaal gu ndaw ba demaat Pointe Noire ci lañ ko dugale nag ci gaal gi nga xam ne moo jaar moom ci dëkk bu ñuy wax Siti Kama Siti Kama moom maa a dend mu nekk ci dëkk dëkk mag ba nga xam moo gën a jigee Gamba lañ koy wax fi la pétrole Gabon bi li ci ëpp nekk sëñ bi nag daal di dugg ci biir territoire gabonais jaar jaar Port-Gentil jubali Libreville ci ndox mu ñuy wax le Logoué lëggooy boobu nga xam mooy dex googu nag ki la sëñ bi jaar ñëw teer si nag Libreville euh, ci poor boobu foofu nga xam ni moom la ñuy wax débarcadère mu jàkkaarloo ak actuelle présidence de la république bu Gabon bi fa sëñ bi wàccee nag euh, moom sëñ bi euh, dégg nañ bay dem wax yasara lii mun naa la daal Libreville man xaadali maa xaaba an ku ni wali Libreville wala Limberville comme ñi ko sëñ mu Ka di waxee waaye leen lu ci nekk benn kii benn benn mbir mi la rek sëñ bi bi mu wàccee dox lu toll ci xam naa ni ñaar fukki jéego wala juróom fukki jéego du ko mën a weesu ndax distance bu tuuti la foofu la taxaw julli fa ñaari rakk fa mu julli woon tëj ji immeuble bu fa nekk malaayika lañ koy wax léegi sëñ bi avancé ci lu toll ci 100 wala 150 mètres foofe nag la tubaab bi waajaloon nag euh, quartier gi fi nga xam ni fa lañ war a téye sëñ bi nga xam ni séjour ñetti weer yi nga xam moom la sëñ bi am ci Libreville foofee la ko am foofee nag sëñ bi ba mu fa nekkee amoon na barab yoo xam ne fa la nekkoon moom di fa jullee ak barab boo xam ne moom sëñ Touba fa la daan yendu fu lu ci ne rek ak fa ko daan defee xam nañ ni daan da daan weccee ay barab yu baree bari ndax waxtu wu nekk ak fa ko bëgg a jaamu yàlla ci lu bees muy sëñ bi mu doon dund dundin woo xam daal wu waroo ak wi wi nit ñi di dunde la ci ci ak jafe ndax ku organiser la woon nag moom sëñ Touba waaye suñ borom nag loolu nag mu def ci ay mbir yu yéeme ndax Euh, barab bi nga xam ne moom sëñ bi fa la daan jóge ci fi ko tuwaab bi tey dem di fa julli barab boobee mooy fi ñu njëkk a tabax jumaa ci suufus Gabon ñu naan ko mosquée centrale maanaam ay sénégalais yoo xam ne am na ñoo xam ne fekk nañ dikkuk sëñ ba foofa xamoon ni foofa la doon julli ñoom bi tubaab yi waree libéré Gabon mar war ko may indépendance bi leen tubaab yi ne nag yéen parce que ñoom kenn ku ne xam na ni ñiñ daan affecté Gorée lañ daan jóge wala Saint-Louis wala Rufisque wala Dakar waaye ñoom daawuñu jël ñu ñuy wooyee ay indigènes di leen affecté ñu ñu daan affecté ñëpp ñu dañ daan amee nationalité français français yi nag am na ñoo xam ne après choisir nañ dem France ñenn ñi toog am nañu njaboot Gabon toog nañ fa léegi nag am ci ñoo xam ne nag bi leen tubaab bi ñaanee nag ni lan ngeen soxla ngir ñu may leen ko dañoo taamu nag barab bi nga xam fa la sëñ Tuubaa doon jullee nga defoon ko seenub jataayukaay di fa jullee di fa toog ba ginnaaw bi nga xam ne tabax nañ ko ci ay yoonu yoon ba ci jamono ji benn naaru libaane tabax ko mosquée boo xam ne daal bu bu muxtaare bu yéeme la muy mosquée bi njëkk am ci réewum Gabon ci ci libre Libreville beneen ba ca des it mooy barab bi sëñ Touba nekkoon tey jii seen premier président ñu koy wax Léwomba nga xam ne 1900 bi fa sëñ bi juddoo moom la ganee àddina moom président boobu bi mu nelawee en 1967 it moom fa sëñ ba nekkoon ak moom foofu lañ ko suul tey jii mooy mémorial Léwomba su ko defee mooy doon tamit seen ancien place d'indépendance Léwomba moomu tamit benn sénégalais bu ñuy wax Weñang moo doonoon titre moo ko yar ay sénégalais tax Gabon du ñu mën a a Euh, quartier bi nga xam mooy quartier résidentiel bi gënoon a réputé booba jamono ay sénégalais fa dëkk ñu di ko wax euh, Saint-Lazare wala Saint-Dominique nga xam ni boo demee famille général Diouf famille général Ndaw famille générale Diop askan yi nga xam ne ak Ndiaye ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon bu njëkk ak Omar général Omar Ba ñu ñoo njëkkoon a nekk ak Omar Bongo ba ci bi Omar Bongo di daanu sax ku ñu wax Lamine Diop moo nekk directeur de cabinet ci présidence daal bi ñoo ñëpp nag seen maame ñooy ña fa jamonoonte woon ak sëñ Touba ko defee kon booba jamono daal mel na ni Gabon loxoom euh, leen feeñ na ci bu baax a baax a baax moo tax sëñ Moussa tudd na ci sénégalais yu bari yoo xam ne bi sëñ bi demee gisante na ñoom ñu mel ne ay nam sakeet ak ñoo ñëpp mu tàggoog ñoom ñooñu mooy ñi nga xam ne nag ñoom la fi sëñ Touba jamonoonte loon loolu bi mu amee nag ci biir ñetti weeram yooyu nag ci lañ jëlee woon sëñ Touba ci barab boobu nag di ko yóbbu fi ñuy wax Montagne Sainte Montagne Sainte mu doon barab boo xam ne war naa toll xam naan ci kilomètre wala un demi kilomètre ci barab bi nga xam ni mooy barab résidentiel am bu ñu ko téye woon ñu yéeg ak moom ci tund woon nag yóbbu ko fa seen objectif mooy dañ ni nañu ko yóbbu ak euh, douze personnes yoo xam ni ay tireur la ñuy doon bu ñu demee ñu marale ko garab fital ko loolu pexe moom dañ ko doon jéem a def mu doon loo xam ni guddi lay doon su ko defee suñu réussiree pexe mi bàyyi ko fa ba ëllëg ngir nit ñëpp gis ko bu ñu ko réussir mu doon guddi buñ ci buñ ci amee defet kenn du kenn du ci mën a nekk témoin loolu moo waral ñu yóbbu ko ci barab boobu waxtu guddi mu mel ni euh, nangoo naa ci euh, euh, xalifa sëñ Amsatu Jaxate bi fi nekk di sëñ Muntaxa Jaxate muy wax ni dafa mel ni jamono jooju ñu ko fi téye bëgg ko def guddi daa mel ni suñu borom daa téye montre te ñoom ci montre rek la ñuy xool waaye mu gaawal waxtu wi nag balaa te ñuy pare la ñuy def daanaka asamaan nee na sëñ bi tamit wax na sëñ am sa tuni ko boobee ñuy def loola am na ku mel ni ab soldaar solub te ni romb leen fa waaxu jëm si ñoom ñu yaakaar na ci ñoom la bokk soldaar buy ñëw di nekk seen kotel neen daa am lu ma ko bëgg a wax ndekete Sidna Jibril la ba mu demee rek ca sëñ ba déeyoon teg moom ni ko man la Sidna Jibril dama fee ñëw maa ngi ànd ak ñetti junniy malaaka nee na nu ñuy wax doon rek malaaka yi dañoo daal di sàppe ñoom wër leen ci ñetti wër nga xam ni maanaam soldat si ñoom yëgaguñ li xew waaye mbir mu garaaw a ngi tàmbal di am ci ñoom bi nga xam ne Sidna Jibril jox leen digal rek ñoom seen feeñ gi bi bi leen seen jëmm yi gisee dañoo tremblé ba ñenn ñi daanu nañ ci suuf ba faatu fi ñenn ñi ñu ngi daanu di xam di cadd cadd ñeen ñi miir nañ ba seen fital yi nga xam ne dañ ko yoroon mënatuñ koo téye te loolu fekk na jant fenk na nag mu doon mbir moo xam daal da tasaaroo ci réew mi ñëpp gisandoo ko loolu bokk na ci li nga xam moo jeexal état bu Libreville nag ñu ni kii euh, mbir mi garaaw am na ndax lii ñoom jotuñoo tiire waaye ñoom gis gi ñu gis malaaka yi rek moom moo moo moo leen terroriser ba ñu daanu ci suuf di xam ba am na ñoo xam ne faatu na ci bu ko defee nag loolu nag moo tax ñu te tubaab bi dañ doon def ku jëflanteeg sëñ bi rek ba amee ca loola danga nga kii dootuma dugg ci mbiram mukk mukk ñoom nag dañ doon kon wuti ñeneen ñu ci xamagul dara dañuy tànn yeneeni élément yoo xam mosaguñoo dégg mbirum sëñ bi nag ndax ñooñe dinañ ko ñemee ndax ñàkk xam gi ñu daal di defaat noonu rek dugalaat ko ci gaal booba Gabon amul oto amul aw yoon amul saxaar li tax boo gisee tax ma di ci incité tamit xam naa ban at la fa Omar nga taxawal saxaar mu jële ko ci Franceville ba ci dëkk ba ci capital bi di Libreville kon lu jiitu loola diggante yomba ak Libreville aw yoon amu fi du yoonu tànk du yoonu oto dara amu fa piste amu fa forêt bu fermé moo fa ne gaal yi ndox ndox yi nag ñoom dañoo am lu ñu wax la Logowé nga xam boo demee province Gabon yi ci ëpp Logowé boobu jaar na ci nga xam ne am na Logowé maritime muy Port-Gentil am na Logowé Vindo am na Mwenegoué muy Lambaréné am na logo yi lolo logo bi nag dex gi ci boom la ñuy identifier ci barab yooyu nga xam ne dex gi moo wër dëkk bépp dex googu nag ci lañ doon jaarale sëñ Tuubaa waaye bu ñu demee ba Maayomba nag moom it geneen dex dafaa ne gum taqalool gu ñuy bu ko defee nag bu àggee ci le Bagnon nag le Bagnon boobu nag dawaat na sax ba ñëwaat ci digg bi ba taqaloo si ak lu ñuy wax Komamonda mu nekk geneen dex kon Gabon dëkk lépp ay dex ko dëkk dex yi nag moom mën nga cee jaar ba wër réew mi yépp su ko defee nag kon ñoom booba jamono benn mooy lañ amoon mooy dugal sëñ bi ci gaal di ko joow léegi ñun tey jii bu ñu bëggee jóge Libreville dem Mayomba dinañ daw ci oto yi 819 kilomètres mais jamono ja sëñ bi dem nag comme wenn yoon wu jóg jëm jëm Mayomba amulu woon daan nañ jóg dem jaari ba Port-Gentil di wër di jéem a dabu ji océan Atlantique bi di daw ak moom di wiiri ba ba ñu àgg moom donc c'est estimé à des milliers de kilomètres. su ko defee nag bañ ko fa yóbboo nag Mayomba danga nekk barab bu doy waar boo xam ne maa ngi wax ni foofa la sëñ bi sax juróomi ndax li tax ma wax ko nag yu bari la bari na sukkandiku nañ ci waxi sëñ bi sax ndax daf ni saaxali xëyrilaahu fii maa yumba maa sa axal bi wax alaa jan ba moo topp ci yasaral ni mun naa laa da dimir kon moom journal officiel la ni mu doon bindee na la dëkkam ya toftaloon te bi mu dalee Conakry ak ba mu jógee Ndar daw mais noonu mu ko demee ba àgg fee na dëkk ya toftantale rek laa ko waxe kon ci loolu laa sukkandiku ak beneen bi ci des nag mooy sëñ Modou Lo Dagana mi ngi fekk sëñ Touba ci dëkk bu ñu wax Lambar na ànd ak sëñ Mon ginnaaw bi mu woo si maam Cheikh Anta mu ñëw ànd ak sëñ Mon Ndiaye Diop man mii yor naa plan bi nga xam sëñ Moundiaye Diop moo ko dessiné ci loxol boppam wane ko muy wiilu làmbar ne te loolu bi mu koy dessiné tuuti lañ ci teg sëñ bi ñibbisi kon dëkk boobu moo mujj Mayumba moo njëkk waaw bu ko defee am na yeneen i preuve tamit yu ci am daal waaye li wér ndax am na ñu ñu xam ñoo xam ne ñu cosaanu ci euh, Sidi Mabo lañ nekk ca maayoom ba seeni waajur nekkoon fa dajee fa ak sëñ Touba gisante fa ak ñoom ba tey jii ñu nekk fa ak yu bari yoo xam ne sukkandiku nañ xam ni Mayumba moo jiitu làmbar na Mayumba googu mu sax juróomi at it yu bari dafa am moom sëñ bi bi mu wàccee rek dëkk muy dëkk bu enclavé boo xam ni genn wàll gi océan Atlantique moo ko tëj geneen wàll gi ci des fleuve Bagno tëj ko mu nekk île boo xam ni moo tax sëñ bi naan marajal baray ni ndax tëju googu mu tëju ci ñaari ndox yooyu balaa nga faa mën a demit gaal dong la fa mën a yóbbu amoo meneen pexe moo fa mën a jóge kon séquestration la ñuy def maanaam tëj ko ci foo xam dootu fa mën a génn ci menn pexe loolu la tubaab bi yaakaaroon moo taxoon ñu dugg fa yóbbu waaye nag li ma ci jaaxal mooy lan moo tax église Mayumba ak ville de Touba ñu fondé ko ci même at mi daal loolu ma jaaxal muy 1888 coïncidence boobu daal jàpp ma ko muy un fait hasard mais damaa jàpp ni ndegam sëñ bi moom neewoon na billaahi faaraxtu nasaara jeewal ca jeewal mu wane ni moom tàggoo na ak nasaraan yi kon daa mel ni moom ci ab coobareem lay tukki te moo waajal fañ koy fa muy tukkee. te it am na yeneen i bindeef yàlla yu mel ni jinne yi nga xam ne ñoom lay wax ni bee taxala xala si ne astamu mi jinni as yi doona mën lem sin nga xam ne ilum maayom bala dajee nen teg moom nga dégg sëñ Musaa wax na sax moom ba leeral ci yu bari ak labbe yooyu nga xam ni dañ leen doon jëlee ci dëkk bi ñuy wax luwango nga xam ne mi ngi moom mooy act mooy mooy actuel point noir moom lañ daan wax luwango ci booba jamono ñu daan fa jëlee labbe yooyu te Roma leen fa daan yónnee ñu ñëw di nekk di jël si fonction ci cathédrale boobu ba ci 2010 bi nit ku ñuul musta nekk labbe ci île boobu ba nga xamee nit ku weex noppi na fa nekk làbbeet il ba daa église ba daa tëj amatu fa su ko defee kon ñooñu nag jëflante nañu ak sëñ Touba ci yu baree bare bokk na ci yi ci am mooy sëñ bi bi mu ñëwee rek fi ñu ko dalal rek mu bëgg a ay bant ngir def ko jàkkaam joo xam ne day wàcc di fa jullee ñu simpi bant yi sànni ni ko bu nu xatal sa jullikaay bi xaju fi bu ko defee loolu daal doon mbir moo xam ne euh, wax dëgg yàlla mu doy waar la nga xam ne am na ku ñuy wax yelli sëy koo xam ne ci soldats la bokkoon mer na ci ba ci xuloog ab supérieur am naan ko moom dañ ko fee indi nag waaye nag buntu néegam am na droit sam fii bantam julli nga xam ne xuloo nañ ci suuf ba ngoon waaye moom it xuloom boobee may na ko bi jumaay njaareem eggee jóge na ndar fekk si sëñ Tuubaa fii moom it ba sëñ bi won ko jumaa ji xamal ko ni ko bantee lañ mënoon simpi waaye mënuñoo simpi jumaa ji man nag bokk naa ci ñi nga xam ne dañoo xaw a dàq comme ni murid di wax ni euh, simpi bantam nga ñeenti bantam yi ci lañ ko fayee jumaay njaareem ak ju Tuubaa man damaa wax lu gën sori lool ndax Masaalikul Jinaan gi ci jumaay yi ñu ko fayee la bopp kon daal simpi nga bant yi moo ko moom lañ ko fayee jumaayam yi ndax tey ji boo demee Taïf jenn jenn jumaa nga fa kon foo dem ci yoonu murit ku doon simple benn bant daal sab liggéey dem ba jur jumaa yu toll nii yi nga xam ne yoonu murid am na ko kon kon loolu laay wax kon kon xañ na yee dañ koo njëkk gis rek wane ni njaareem ak Tuubaa waaye nag yeneen feeñ na fi yoo xam ne jàpp nañ ni mënu woon a rawatina bu Masalikul Jinaan ba nga xam ne moo nekk ca Dakar ga nga xam ne naqaram wa àggoon na ci mu naan iza zakartu zalikal mabita wa zalikal aminu wa zabo tarak ilal jihaadi bil armaayi nafsi walakin zabbi anil maayi mu mel ni kon ndegem moom foofa métti woon na ci xolom ba mu ba mu yéenee jiyaar ñoom bu ko fàttalikoo rek kon mel na ni su ko fa def jumaa ju toll ne wax dëgg yàlla ci taaru dakaar nga xam mooy la gën a ëpp valeur ci Dakar amul benn immeuble wala benn kii boo xam ne investir nañ ko lu toll ni lañ investir ci Masalikul Jinaan xubba ba ma fa gis sax man gisuma ko maa ko gisuma ko Médine moom wax dëgg yàlla gisuma ko fenn te yi may wax yépp nag dama jaa dem gis ko te gisuma fa euh, vraiment intérieur u jumaa yi jumaa yi Masalik gisuma ko feneen ñoom nag bàyyiwuñ ba benn bis ñu gasal ko ak camp ay mat def ko ci taal ko ba mu tàng jër ñu ne nan fexe ba wut dara lal ko ci nax ko ba dugal ko ci ñoom naxuñu ko ndax koo xam ne day gindi ko ci Sidna Jibril koo xam ni malaaka yaa ngi fi koo xam lu ne mën nañ ko fekk kon ay sababa war a suñu borom wan leen ni leen kii ku ngeen mënta rey la yéen ku immortel la koo xam ne mënu leen koo rey waaye nag ñoom loolu duñ ko xam fokk dañuy def seen fexe yépp ba mu jaax ndax sëñ bi dañuy xayra xuróoju ruuy rek dañ naa ko loolu sama ruuj rocc ko rek ñoom teg nañ ma ko foofee bi nga xamee ne gas nañ kàmb googu nag moom sëñ Tuubaa dugal ko ci moom moo tax mu ne xaasaaniyal xanaanu min kay di man xalaa wasaaraka naarul xilli li baari maa yomba mu ne maa yomba daal gasal nañ ma sawara woo xam ne mi ngi koy masal ci sawarum wañu tàllaloon namrut tàllaloon yonente yàlla ibrahima waaye sawara woo moom bañ ko ci dugalee dañoo gaawantu nag di maasale dégg sëñ mu Ka na ñuy maasal di marmaral di saaga ba ñu xëyee ñu fekk daam un naa ko kon daal lañ ko daal di fekkaat kon ca bara ba mam doon ne te ñoom suuloon nañ ko ba jàpp ni faatu na foofu bënn kooku nag dégg nañ ñëpp dégg nañ sëñ Abdoulaye wax ko ci genn màggal ni soxna bu sa ndey ma ko fekk rek sëq ci ay mbëggam génne ko ni ko sëpp fee ba mu gestoo xool ko muy dem doon soxna jaar moo tax man tamit bokk na ci li may wax ni kon soxna jaar daal daa mel ni bi mu ko feeñoo fii ci ndakaaru ba ca gamoo yëpp ba feeñ fa kon mel na ni mu musta tàggoog moom kon soxna bu sa daal kon saa su ah nekk gi mu nekk ak sëñ Touba bëtam tegu ci moom musta tàggoog moom daal laal loolu lu feeñ ci tukki ci tukkib sëñ Touba fépp la te Touba bi tamit amoon nañ baaxoo nañ ñi ci jéem moom mënuñ ñoom dootuñ jéem ndax nee nañ soldat si nga xam ne bokkoon nañ ñi gën a soxor nga xam ne bantam yooyu mer nañ ba dem di nii buñ ci sawee dootu ko sa dootu ko sampaan ndax sobee si lay daw benn waaye mer dem di ci saw dégg naa amul lu dul jël ak satalaam dem ci wan ak di bëgg a defaru rek ndekete diggante bi suñu boom tàngal na fa ndox ba mu ko suttee ci moom day yuuxu naan maarab bi alag na moom jiñatu ko kenn loolu maarab bi alag na ma jëf yooyu ñu koy def nag euh, ba ñoom ñimeetuñ ko benn commandant boo xam ab navire la yoroon moom it jógee euh, ci dëkk boobu ñu naan nga xam mooy Luango ñëw Mayomba ndax booba jamono léppi Mayomba bi ngi dépend ci Luango ñoo leen di jox lépp lu ñuy lekk lu ñuy naan ak lépp foofa lay jóge ca booba jamono léegi nag kooku bi mu ñëwee moom ci diggante bi nag ci la gisee nag roos bi nga xam maa ngi koy melal lu baree bari xeer woowu muy xeer woo xam maa ngi wax ni ba sëñ ba jógee ak tey wax dëgg yàlla gisaguma ku fa sa ndimmal yóbboogun ku dul kenn muy ku ñuy wax sëñ Mor Fassa Diouf léegi laa tàggoog moom mi ngi fii ci jànnatu Mawa ku ñuy wax sëñ Njaga juuf ci seexu maam Seex Ibrahima mooy bàyyam tudde ko sëñ Mor sa Baaxum moom daal laa gis muy loo xam ne ak kemaan la moo sax sax ñaare du neex di expliquer waaye moom dafa ñëw ma ebel sa ko sama kër ñaari at mu doon nit ku sel di dugg xaloo benn bis mu wax ni sëñ bi moo ko feeñu ni ko demal ma Cité Kama ca man boobu mosumaa gis it ku dem Cité Kama ndax Cité Kama fu enclavé la enclavé la moom it fu jafee dem la ba mu fa demee am fa ay fan sëñ bi feeñuwaat ko ni ko demal wiir wiir mu woo ma téléphone ni ma Cheikh man de sëñ bi yabaloon na ma fee dem naa fa waaye léegi wiir wiir la wax wiir wiir loo ci xam ma ne ko wiir wiir xaw ma fu mu nekk mais li ma ci xam mooy aw xeer xeer wee ngi ci diggante Pointe ak Mayomba kon da ngay dellu Mayumba nag boo demee nag toog fa am sa temps di introsé nag navigateur ya fa ne ndax ay ouest africain nañ ay béninois fa nekk ak ci togolais di napp yàgg fa lool am fa seen i kër dëkk fa bu ko defee ñooñu boo leen laajee ñoom dinañ la mën a wax ci xeer wi dara bi mu demee un mois la fa am di wër ba kenn wax ko ni ko man xeer wi xam naa ko te man yàgg naa fi mu ba ma fi ñëwee rek laa ko daan dégg ci mag yi dëkk bi ba xam ci dara ñun bu ñuy nappi dinañ xam xeer wi fi mu nekk ndax dañ koy moytu muy xeer woo xam ne soo fa demee foofa courant bi dafa am doole ba nga xam ne gaal gi boo moytu dootoo ko mën a téye lu dul bu dalul ci kaw kaw rek boo moytu da koy toj nga xam lu garaaw la. léegi nag sëñ Mor moom bi ko kooku waxee ñu waxtaan kooku ni ko da wax ko li mu koy fayu ci ab xaalis ngir bu ko fayee dina wut carburant ak loolu yóbbu ko fa. ci jamono jooju nag am na benn xale boo xam ne moom dafa nekkoon moom it Pointe-Noire bëgg a dugg Gabon. mais da ko bëgg jaare ci frontière yi am ko yor gaal ni ko man de mën naa laa yóbbu ba maayo ba boo fa demee yaay demal lu yóbbu li ci contrôle yeeg yooyu ndax frontière la dafay bari contrôle mu nangu kooko sànni ko maayam nag ba mu demee fa la gisanteeg sëñ Mor moom comme amul keneen comme fi xam muy toog ca moom ndax murit la muy murit ba bis bi sëñ Mor di am gaal faal moomu mi ngi toog tey jii may wax ak yéen ma nga làmbar ne faal moomu nag bi mu demee bi sëñ Mor di dem ni ko kon teen cee ànd ndax comme yow fekke nga lii te man ginnaaw bi tamit damay ñibbiwaat libre naan ànd ci mbir mi ñu laa di ànd embarqué waaye bañ demee dañoo daw daw daw ba ci biir am na ab benn île boo xam ne ci biir la ne boo xam moom la ñuy jot lu njëkk loolu ndax booy wax léeg bi ngay résumé bañ demee taxaw fa commandant bi nga xam ne moom moo doon dawal ba foofu dafa wàcc ñu indi keneen ku ëpp experience expérience kooku nee na am a ngi taxaw ci wetam mu mu joxoñ ko ko ni ko kële sama rakk la gis gisoo ko mu mel ni loxo bi daa dagg mu ne ko ah kay mu ne ko loxoom boobu ci fii ñu jëm la ko dalee mu ne gaal la yoroon di ko dawal dem ba ca xeer ba mu demee di daw di wër xeer wi bi mu turnee gaalam rek mu mel ni dafa am lu accroché gaal gi téye ko bi mu téyee gaal gi nag moom mu ni xaj na lu mel ni xaj na euh, xañ na raba ci lonk wala bu mu fi newoon ci biir am mouillage wala dara ci lonk dugal loo xam ne da koy seet rek loolu ni tipp loxo bi ci ci mbagg mi bu ko defee yii nii dina dina laaj sax ku mel sëñ Mor moom ma contacter leen ngir ngeen waxtaan ak moom moom tamit mu wax ci dégginam ndax yooyu yëpp dina gën a am solo ndax man du ma wax lu dul loo xam ni lu ma xam bu wér la dund ko fekke ko su ko defee kon loolee nag moom ba mu sëñ Mor ba mu dikkee filmé woon na ko ci portable am mais maa ngi lay wax ne sëñ soxna Awa depuis 1995 maa ngi dem Mayumba mais wax naa la li ma doon dem lépp à chaque fois doon naa jéem a a filmé ak jéem a def waaye dara loo mën a téye ci lu bokk ci Mayumba yomb daanaka loo ci am dangay ngay xeexe mu mu dañ ba ci at yi xanaa dernier enregistrement yi ci am ñu ngi ko dooram waaye bu njëkk pour nga gis kon la sama photo baak maa yomb rek ak sama nangam la rek lu jafe woon la mu mel ni day day loo xam ne xañ na sëñ bi jubluwu ci woon xanaa léegi daal nii nag xañ na mi ngi door jot ñuy ñëw ci 24 actu di ci leeral di ci wax ak euh, di ci dox yeneen médias yi tamit war cee ubbi ak yooyu yëpp mu doon liggéey sëñ Tuubaa ba xam daal xam naa mi ngi door jot nag ci sëñ bi yaatal nit ñi nag ngir ñu mën cee def dara su ko defee loolu nag bi mu amee ci étape boobu kooku moom ba mu jëlee sëñ bi foofa ba mu demee moom navigateur bi ba gis mbir mi wax leen ni moom da mën naa yóbbu sëñ foofa sànni ko ci xeeroo su nekkee marée basse su dellusee see ndox mi dina nekk marée haute mëdd ko mook ay bagaasam am mu faatu du dara xeer la boo xam ne roos la buy génn nii rek nga xam du benn roos sax waaye ay roos yu baree baree bari yu yu yu taqaloo la nga xam ne maanaam soo xamee ni gaal gi séen na ko da koy moytu ndax su ko moytu bu ci dalee ci xeer wi xeer wi day toj gàllam moo tax loolu commandant bi nag ni muy yuuxoo ki yor baar bi naan ko wiir wiir loolu moo loolu la ci lañ jëlee baatu wiir wiir ki koy dégg nag day defee ni da koy wan ni ko wiir wiir barab baay wiir wiir waaye wiire jooju mu koy wax ci la baatu wiir wiir jógee mais sinon ca maayo ma moom roos lañ koy wax muy ay xeer yoo xam ne daal yu dajaloo la nii yoo xam ne euh, xaw naa nekk ci diggante bu yaatu moom nag bi mu ko gisee mu yàkkamte ñëw wax ko bi mu ko waxee ñu ne ko ñun kay kii ku ko sànq rek lañ bëgg d'ailleurs sax moom daanak comme kenn ñemewu ko te yow gis nga ci lool yow kay kii na boo ko defee kay ñu primé la jox la xéwal yu bare bari mu daal di gaawantu yi muy jël sëñ bi da ko yóbbu nag fekk na sëñ bi moom euh, Samba Laobé ci boppam moom indi nañ ko foofu Samba bi nag moo sëñ bi dafa xaw a mel ni xaw ma ñu jógee ndoo nañ fi waaye ci départ bi bokkuñu ay bokkuñu ay trajectoire yu ñu jaar ndax gisuma trace Samba Laobé ci Libreville wala ma gis ko ci Lambaréné wala Ndiolé man li ma ci gis rek mooy fi ñu ko wanee digganteem mag sëñ bi ci Maayomba kon mel na ni xaj na même bu ñu leen yóbboon kon séparé woon nañ ci ay demandoo wala wala yu demee noonu ndax léeg-léeg ma dégg ñu naan dañ koo booleeg Samba yóbboog ci Gabon yu mel noonu mais wax dëgg yàlla gisuma feneen foo xam ne gis naa fi lu lu nuroog présence Samba wala ñu expliqué ci dara lu jëm ci Samba waaw bu ko defee nag Samba Samba moomu nag tubaab bi dañ ni c'est un témoin gênant kii bu ñu ko fi bàyyee yóbbu sëñ bi ci façon bu ñaaw bi bu labee ci géej gi ak bagaasam yi bu ñibbiwaatee Sénégal da koy nettali te moom indiwuñ ko fa pour rey ko correction lañ ko fi indi léegi nag ñu ni ko kon nag léegi nañ ko ci sànniwaale pour bu pour bu demee du ko nettale sàmba nag ñu dugal ko ci yóbbu leen ci roche boobu bañ demee ca roche ba sànni leen fa moom commandant bi bu gaawantu nag euh, di bind rapport am wane ni sànni na fa sëñ ba te bi muy agsi kon marée haute marée haute bi ñëw na mëdd na xeer mu ni nag kon mbiru sëñ ba jeex na faatu na foofu ñu ni ko kon da ngay dem indi équipage bi nga àndoon ñu ñëw témoin ni c'est vrai que yóbbu ngeen ba sànni ko ci xeer bi ñoom ñëpp ñu ñëw ci brigade bi daal di témoin te xel wiir ma may wax maayomba bi may wax ni ko dex gi wëree ak géej gi benn passage rek ci nekk boo xam ne ci am montagne la ñu ñëw nag ba ci bunt pass bi def fi camp militaire bi quartier soldat si yi may wax nag daf ci am yenn yoo xam ne dafa am benn commandant bu ñuy wax benn colonel sénégalais bu ñuy wax colonel Madjimbi Diop mi ngi fii jànnatuma waa dakaar la nekkoon ñu affecté ko Zaïre mu ni nag moom du dem Makka mukk te ñëwul wër fi sëñ jaaroon yépp kooku moo ñëw ma ànd ak moom yóbbu ko làmbar na ñu wër làmbar na mu def siyaar mu booba jamono aéroport ba fonctionnel na mu loué avion ñu mën ak moom ñu ànd dem wàcc Mayomba bi ñu demee moom it kuy kuy recherche la te xam na affaire soldat bi mu demee nag moom moo ma woon yeneen bâtiment yi ni ma même batiment colonial yi nga xam ne moom la soldat si sa defoon ca lam ca lambara di fa garder sëñ bi même batiment yi ñoo nekkaat ni ci entrée wu euh, bi nga xam ci ngay yéegee pour dem ci sëñ bi ne woon mu gisaat présence su quartier gi foofu moom moom colonel bi may wax muy colonel Madjimbi li tax ma ni wax ñi ñëpp c'est des témoins ñoo xam ne ñu ko fekkee lañ te ñu ngi fi te moo ma indaaleel sax bi nga xam ne moom la sëñ Mën Jaay Jóob dessiné ba mu àndeek maam Cheikh Anta moom colonel boobu moom ma ko indiloon su ko defee yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne su ci amee dina tax li ñuy wax nekkaat nag lu nouveau parce que dafa mel ni nit ñi dañuy nettali sëñ Touba comme histoire histoire yi historienne te sëñ bi ku éternel la ku deewul la ku fi ne la ku fi mbiram sax la ba tey koo xam bis bu ne mën nañoo gis ci moom lu yees la du ko defee ko te man loolu nag laay wax damay wax gis gi nga xam ne mën nañ koo gis mbirum sëñ bi di ci gis ay gis-gis yu bees moom nag bi ñu demee bi ma wonee bâtiment yooyu ñu xool ko ñu ànd booba jamono may ànd ak moom euh, booba fekk na labbe yaa ngi fi jógeegun fi bi demee ñu dem labbe yi may ñu lu toll daanaka ci ay 20 minutes ak yooyu ñu dugg siyaar bu ngeen paree dañ leen di génnewaat fekk am na benn hôtel bu nekk ci ci booru ndox ma ca geneen wet ga ñu ànd ma ak moom keroog falan fanaan moom moom moom boobu dem siyaare ji barab boobu li tax ma indi ko ceet mooy dama ko cee indi ngir mu nekk preuve rek ci li ñuy def kooku bi mu defee loolu nag ba mbir ma noppi te amu ci réussite ñu won ko ni ko sëñ bi dellu siwaat na ca barab ba nga ko jëlee woon mook sàmbalaw bi mu reyee boppam nag sëñ bi nee na foofee lañ tàmbali di ko wax yàllay gabon la tax mu wax ko nag mooy daa ñibbi si njaareem sëñ Bay Saar naan sëñ bi Ahmadou yàlla jàngee loolu la doon wax nit ñi di yuuxu ni lu tax mu koy wax yàlla sëñ bi di ko tëral tibb suuf di sut ci gimiñ gi ngir mu bañ a wax waaye mujjewul dul benn jamono mu ni sàllaaw loolu mooy wax de ca il booba ñu naan Mayumba ci lañ ma ko njëkk a waxee te doomu aadama baaxoo na bu gisee lu ko jaaxal rek da koy jiiñ yàlla bu maanaam nit nit bu gisee xam nga da nga dégg ñu naan doo yàlla doo yaali xam nga yaali moom kenn xamul lu mu doon bu ñu koy dëppaleeg yàlla kon yàlla moom lu jaaxal nit rek yàlla la koy jiiñ léegi bu ko defee nag kon loolu moo waral ñu jëlewaat ko ci il boobu nag jaar si ak moom ci pourcentage bi may waxaat Cap Lopez jëlee fa gaal dugg Lambaréné kon bu ko defee bi ñu demee làmbar nag làmbar na googu nga xam fi la sëñ bi sax état ba mu mujj ci ci à peu près ci ay atu 1900 wala 1899 la fa sëñ ba agsi toog na fa ba cent 1902 ci la sëñ Touba ñibbisi foofee nag euh, diggante ba nga xam ne fa la fa sëñ Touba nekk moom it yu bari xew na fa. wax nañu benn waxambaane boo xam ne booba jamono daan na fekk sëñ fi mu toog mu koy kook di ko wuccax ay jaas naan ko sama maam moo doon rey ñi ne woon fii ak sëñ bi naan ko doo doo sa maam sa maam du yow te it duudu mi ñuy wax tamit man ci li ma gis duudu sëñ bi ci lambar na googu la nekkoon ak moom ndax damaa gis famille Sidi Mabo te it ñëpp dégg nañ histoire duudu ma mbay ak Sidi Mabo mu koy muy wax sëñ bi ni ko muy wax Sidi ni ko bu ko duyalati satalaam bu ko mayete mu jàpp bu ko jàppale ci dara ba Sidi mer ni ko man luñ ma joxati sama weer rek Seex Bàmba laa koy jox Dudu Mambay Mber génne fital bi di ko fital fital gi mooy mu fital secrétaire ba ne woon ci bureau ba bi mu moom lañ naan moom la sëñ Moussa naan moom di ko fital mu mooyee dal baaw baaw boobu mooy secrétaire ba secrétaire booba nag ba mu ko reyee ñu nommé Sidi Maba mu nekk secrétaire man tey jii may wax xam naa ay sëti Sidi Maba ci làmbar na yoo xam ne kenn ki euh, seen ministre de justice jabaram la ñooñu ñëpp tamit dama nekkoon di ña di leen ñawal nekk ak ñoom ñuy gëstu ñoom it ci seen maam Sidi Maba ak seeni i famille gëstu booba ñuy gëstu nag ñu gis ni man tamit damay dox ci mbirum sëñ Touba ginnaaw bu ma àndeek RFI dem fa ñu ñëw ci man di ma wax di ma wax seen mbirum maam étape boobu bi mu jàllee am na yeneen yoo xam ne am na ci làmbar na ndax dégg nañ dikkuk sëñ Modou Lo Daganal làmbar na te dañu wax ni foofu sëñ Touba dugg na fi xalwa ci làmbar boo xam ni xalwa boobu euh, am na at ndax nee nañ soldaas dañu baaxoo woon fi muy yendu bu ngoonee ñu di ko fa jëlee di ko yóbbu feneen ngir mën di ko surveiller bu baax ndax distance yi ci seen bopp ñi ko doon jëlee nag ca fa mu di ko war a yóbbu ca fa muy fa muy fanaane waxtu ngoon ñaari soldat dañu wax ni ñoom dañu dox ba ci yàgg rek lu mel ni ay yàmb song leen matt leen matt yu métti ba dañoo daw wacc fa sëñ ba bàndoone ko fa bàndoone ko fa bàndoone bañ demee ca poste ba loolu mënuñu koo leeral dañ ne danoo dem fekkuñu ko fa loolu lañ joxe comme explication seen rapport ndekete booba sëñ bi moom euh, mi ngi wut yoon wum jaar ba mën a am fu mu fatu dugg xalwa bi mu duggee ci biir àll bi rek ci la fa gis nag barab boo xam ne moom fa la fatu dugg xalwa ba mu fay dugg xalwa mooy bi sëñ Modou Dagana départ Sénégal rek di ko wëri moom ci la sëñ boobu dugg xalwa ndax sëñ Modou Lo dañ ne xëy na kokki gi bisub talaata nam mu ca géej gi bañ naan xatmaata dem na ci géej gi bañ naan sëñ Modou Lo daga na na waaye ba weeroo dellu see ca déwén saak bis bala door a gis Seex Bamba foofee xañ na dañuy tënk sax ndax am na waxtaan yu bari yu ñu xam ci sëñ Modou Lo daga na ci lu jëm ci tukkib géej gi ndax moom ni mu jaaree boo xoolee da nga xam ne bu nee géej gi rek ki jógee Karabaan jaar Sédhiou romb Gàmbi di topp ndox mi rek ndax moom ndox mi rek la ci xam waaye bu xamoon sëñ bi kay xanaa kon day day jóg rek jubali Gabon waaye no loolu ñàkk a xam gum xam trajectoire bi bi nga xam ne ci la sëñ bi jaaree moo tax da doon làmbatu rek ba ni mu àggee duwaala ba mu àggee Douala nag ndox mi tëj ko fépp amatul fu mu jaar moom mu nekk fa yenn waankat ca port ba comme nit ku am kàttan la woon mu daal di won euh, commandant gaal gi mbir mu yéeme ndax da doon bërigo bërigo nit ñi di yenu par benn moom da ci doon sëq ñaari saaku daat daw yéeg mars pied gaal gi dóor ko ci gaal gi delluwaat ñoom bi ñu ko gisee nag ñu ni yii kii de kii matelot bu baax la kii nañ ko jël embarqué ko ci gaal gi ndax kii dinañ ko soxla te te moom xam na ni gaal gu jëm Gabon la moo tax muy def loolu ngir yéem leen ngir ñoom yóbbaale ko ñoom ñu waxtaan ak moom ci prix embauché ko war koo fay mu daal di yéeg nag te moom dem Gabon rek ku tax a jóg nga xam ne ban demee ba ñu accosté ci Libreville rek moom fa la wàcce daal daw dem yoonam ñu koy war ci seen ci pale salaire baag lu ne ñu di ko ci seet ndekete daw na moom dugg ci biir Libreville nag diggante boobu kenn ku ne xam na ni Libreville sëñ bi amoon na fi ñetti weer am na ñu fi xamanteeloon ñu mel ni ay Namsa Keita ak ñeneen ñooñu nag bi mu gisanteek ñoom mi ngi gisanteeg bàyyi Namsa Keita moom moo ko wax ni ko sëñ Tuubaa ma nga làmbar na Euh, bu ko defee na googu nag bi mu ko waxee ni ma nga fa Lambaréné nag léegi nekk na ay cent 280 kilomètres ak Libreville loolu sëñ Modou Lo mën na koo dox jaar ci àll bi ndax euh, aajoowul ndox am na yoon wu nit mën a jaar ci ay piste ba àgg Lambaréné booba jamono sëñ Modou Lo nag daal di wéyal doxam boobu nag daw jaar ci àll bi te booba jamono Gabon fu danger ndax rab yi àll yi ak nit ñi sax ñi nga xam bàyyi woon nañ leen ba tey jii Gabon am na li ñuy wax des indigènes mooy nit ñoo xam ñu ngi ci àll bi mosuñoo génn mosuñoo sol mbubb mosuñoo agsi ci ville bi yaramu neen la ñuy def dañu wut ay paaka sot seen bëñ yi ba mu ba mu ñaw ba mel ni lañ set rab yi dañ leen di lekk te duñ leen togg ñooñu tey jii may wax ak yéen ña nga Gabon les races pygmées lañ leen di wax ba tey jii ñu gi Gabon bu ko defee loolu ma di ko wax rek pour nit ñi xamaale ci ni période bañ doon jël sëñ Tuubaa di ko sànq Gabon tey jii kuñ fa jublu woon sànq te ku la ëpp doole di la sànq am nay il yum la mën a wocc yoo xam ne ba àddina soo ba tey nit mus caa teg tànkam ci lépp loo xam ci danger rek ma nga fa ndax Gabon panthère bi gën a danger ñoo ko les panthères boo demee mi ngi ci àllub gamoo man teg naa ci sama bët ci diggante Mayumba ak Libreville ci lu baree bare bare nekk ci oto bi gis ko fajar ñuy daw fu nekk ak ay ñay éléphant yoo xam buñ meree garab goo gis mën nañ koo dem song ko daaneel ko yu am doole yoo xam ne yu yéeme su ko defee kon jamono boobu nag ci la sëñ Modou Lo soobu àll boobu nag ak ci danger yooyu mu nekk yépp te yéen moom bi muy départ Sénégal la ne woon dinaa gis sëñ bi baa ma dee comme moom amoon na détermination moom dee sax faalewu ko waaye gis sëñ bi rek ku tax a jóg moom la moo tax sëñ Moussa ne na ma ca géej gi bañ naan xatmaa te ñu bu weer wa dellu see ca déwén saak bis ba nag ci lay door ak lambar fekk sëñ bet duggoon na ca weer woowe muy diggu tabaski moom it ci ca lambar na wa bi sam sëñ Modou Dagana àggee lambar nag xool nga ekk ma ni muy demee bi mu àggee lambar na kenn ca soldat soosé nga xam ne ñoom ñoo dawoon ñoom ñoo dawoon ndax ndax yamb yi ba sëñ bi dugg ci àll bi bi mu gisee sëñ Modou Dagana xolam bi da ko wax ni ko kii daal mel na ni bokk na ca nitu nitu waajoojee ñu àndaloon moom mu daal di koy jige nag xaw a wéet ak moom waxanteeg moom ba mu xam ni kii ci waa kër sëñ bi la bokk moo xamal ko ni ko nag dinaa la nett loo xam mais doo ko wax kenn ndax mbir mu doy waar la ndax ñun rapport ban bind wuute na ak li lay wax sëñ boobu ngay seet daaw ci waxtu wi laa ko mujj a gis waxtu timis ci ci ci ci heure bi mu ni ko nag dañ ko doon jëli man ak sama benn collègue bi ñu demee ba di ko jëlee ca barab ba ñu koy jëlee bi ñu doxee ab diggante ay yamb song ñu ñu tiit daw ñëw def rapport wane ni danoo dem di ko jëli fekkuñu ko fa moom mu dugg ci biir àll bi nag boo ñun booba lañ ko mujj a gis te mënatuñ koo wax munatuñ cee dellu ginnaaw booba ba léegi nag kenn teg ko bët te booba jamono àllub gabone kenn munu caa dugg di wër sëñ bi te te xoolal dëkk bi ñu naan lambar ne sëñ bi bañ na ko baax ba galwaa la wax dafa ni li laay xat wasaltu inda galwaa na ni amaayu juru balwaa kon ca gee ca galwaay waaye galwaa nag langu galwaa nag lambar ne mi ngi tekki nañ dem seet ndaxam am nit mën na faa dën dëkk am déet Lambaréné mooy allons voir si quelqu'un peut si un homme peut exister là-bas parce que tellement que am na ay mousseza yoo xam ne bu ñu la màttee dangay nelaw ba ba ngay faat dootoo yow am na lu ñu wax ay furu yoo xam ni duñ la mat dañu ñëw tegu sa yaram rek dugg ci biir yaram bi yooyu ba léegi se c'est existant au Gabon ñuy dugg ci àll bi ñëpp dañu wuti ay produits di ko diwoo ngir loolu bañ a dugg sa ndax bu ñu duggee ay semaine bi day day day day gonfler bu ko defee bu ko defee mu doon mu doon mu doon mbir yu de am na joo xam booy dox ci sa tànk moom sa biir tànk la ñuy dugg ñu leen wax des chic kon foofu am na ay chic am na furu am na tamit ay godd yoo xam ne bu ñu la màttee euh, maladie du sommeil la ñuy jox da ngay nelaw ba faaw dootoo dootoo yeewooti lool nag ñoo tax ñoom ñu gentaloon dëkk ba. kon xoolal barab bi nga xam ne ni mu doyee waar te sëñ Tuubaa nee na fa mu fatoon xalawa daan na toog yooye di matt yépp maasandoo di ko mattandoo. ba bi nga xam ne bi sëñ Modou danga ne ñëwee ba muy génn ci néeg boobu fekk na yooyu sam nañ ko ba yaram wi amut fenn foo xam ne taguñu fi sëñ Modou Dagana nag bi mu ñëwee waa wax ko ni ko fii lañ ko mujjee gisee mu dugg ci àll bi nag ci la gisee nag néeg boo xam ni euh, xelam ñaaw na jot ci ni fii sëñ bi mën na fee hmm, ci niñ ko waxee muy jàng xasida gi nga xam ni moom la ñuy wax lam yabdu léegi nag sëñ Modou bi mu gisee sëñ bi bi mu gisee néeg bi ñaaw ci njot dafa jàng xasida lam yabdu bi mu nee na bi war a rasul wal xalil wafal abib wal imaamu sëñ Tuubaa moo tont ci biir ni wa dalil mu dégg néeg bi di yëngu mu xam ne ki muy seetaan ci nga xam ne euh, sëñ Tuubaa kàddoom gi dafa xawoon a mel ni comme gaynde bu yuuxoo wala yëngu noonu lay rëg-rëgee nangoo naa ci sama benn maam boo xam ne nee bis bi nga xamee ne sëñ ñëw na Tiwaawoon ci weeru koor woowu di jëm si kër sëñ Maru Bëggee doon fi jël si saxaar bi mu ñëwee ba jub dëkk bi euh, ci waxtu njël yooyu soxna yi di war a tàngal ay xëdd yooyu la bi mu ñëwee ba jub dëkk bi ñaari rakkaam yam fay julli ba mu ba mu nee allahu akbar ndaa yi sax dañ doon rëng-rëngi soxna sëñ Marouba daa dawee ca lobb ba mu doon wute matt di taalu laax boobee ba daa daw ba agsi ni ko ginnaaw dëkk bi moom sa sëñ bi rekk fa ne wala gaynde ndax yëngu kubéeri ndaa yi gaynde rekk ko man wala sa dënub sëriñ bi nga xam ne kon sëñ bi bi mu nee wa dalil lu effrayant lay doon àll bi yëngu mu ni wa dalil léegi nag ci loolu nag ki la sëñ Marouba loo xam ne mi ngi fi bi mu yëgloo ba sëñ bi génn nee na nam ko fekk mu fënde ko ak nam ko fekk mu mel ko ci atum lëmm nga xam ne xalaatoo di génn xalaatoo di lekk xalaatoo dara fatu ci néeg booba di jaamu yàlla rek ba sëñ Modou Lo fekk mu ànd ak moom dellu si nag ci dëkk bi ñoom ñuy wa ña soldat sa daal di yéemuwaat lool booba jamono nag ñoom fekk na ñu jeexal ci sëñ bi takk dara desewu leen lu dul rek ñoom nee nañ siiw mucc ci sëñ bi amatul kenn ku mën a wax ci mbiram nag moom nag muy xaar nag léegi dogalub yàlla kenn ku ne tàmbali na gis ni muy waxee sëñ Modou Lo Dagana ya ko fa feeñu yépp muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñu gum ko feeñu ak xasida gi nga xam moom la ñaan wasilatu rubbo nga xam foofu la ko binde ak yu baree bare ginnaaw bi nag mu xam ko ne ko nag dellu Sénégal boo demee wol ma Seex Sidi Muxtaar muy maam Seex Anta boo fekk na ko mu seex ndax bi muy dellu sëñ Mën Njaay Jóob la àndal sëñ ko daan yenu di yéeg moom ci gaali géej gi ak mu doon buur ba ni mu ko àggee ci dëkk boobu nga xam moom lañ naan làmbar ne sëñ Tuubaa ko sërice boobu nag muy lalu weñ bi Rasulullaay toogoon muy muy xasida ak wasilatu rubbo ak sëñ Musaa Dani mbooleem la mu bindoon ceeb moom at muy sant mu ñibbisi nag ngir war a préparer nag retouru sëñ tubaa ci Daaru Salaam kon xam nga euh, yilla ba taxoon mu dem daal nañ koy gis sëñ Modou nag nekk fa ak sëñ bi ba bis sëñ bi nag di wërloo sëñ Modou gaal mën naa wax nag ni euh, feeñ goo xam ne mbirum Seex Ibra feeñ na ko fa ca làmbar na ndax ku ñu wax Abdoulaye nduur navigateur la boo xam ne booba jamono Saint-Louis dafa yoroon gaal dañ ko daan yebal daan na dem ba làmbar na benn bi sëñ Tuubaa dégg ko muy làkk wolof yu naqari waaye nee na ni mu neexee ci moom ndax keroog la njëkk a dégg nit kuy wax wolof wolof yu mel noonu mu koy lakkanteeg moromam ba nga xam ne sëñ bi gis na ko ba ba xamal ko ni ko sénégalais nga mu ni ko waaw mu ni ko foo dëkk Sénégal mu ni ko ndar laa jógee mu laaj ko mu ni moom navigateur la ci gaal lay nekk sëñ bi laaj ko ni ko da kañ di nga delluwaat mu ni waaw mu ni ko ndax dëkk boobee ñu naan ndar déggoo fa sama taalib ba naan Ibra Fall fekk na maa ngi doon wax ni Ibra Fall sëñ Tuubaa ba mu ko wàccee Daaru Salaam da ko bindal ñetti dell muy ndar ndar ndakaaru ndar mooy état bu ndar bi mooy relation bi mu war a am ak tubaab bi ak institution yi tubaab yépp ak nit yi yàlla yu ñu fa newoon ñu baax ñépp ndax ba mu demee kër As Camara la wàcc te moom moo war a organiser nag ci affaire u këyit euh, euh, loo xam ne dina dëppoo nag ak euh, administration français ba ñu accepté mu dellu siwaat kon Cheikh nit ku ñu préparé woon la ku yeewu ku mënoon relation la diggante boobu nag bi mu ko laajee Abdoulaye Ndour ni ko ndax gis nga ko fa mu ne ko gisuma ko fa dégg naa foofu ci siiw gi mu siiw ndar Cheikh Ibrahima booba taalibeem yaa ngi bay ci ndar ñu ngi liggéey ci administration bi ñu ngi ci marché yi ñu ngi fépp moom maam Cheikh Ibrahima Fall comme tudd naa ndànd Ndakaaru ndànd tamit booba ceddo yi ñoo fa ne muy ñu sant faal nga xam ne ak naa moom ñoom ci ak askan waaye nag askan wu sori ndax Cheikh bi am na juróom-ñaari maam yoo xam ne jàng nañ alxuraan mokkal ko juddoo ci njare ak ak njabi kon foofa nguur néew foon Cheikh Ibrahima moom doonul woon ku dem ba jege buur bay war a falu loolu moom wax ko fi weddi ko contrairement ak li nit naan daa demoon ba war a falu jegewul fu muy faloo Cheikh Ibra ku ñu nan wax man desit mooy maamam te man desit moom mokkaloon na alxuraan man desit Déthié Wally moo ko jur Déthié Wally la Déthié fu njoogu jur mooy première damel di Kayoor jamono ja nga xam ne santaguñ faal faam lañ santoon kon Cheikh Ibra nag ni man sama faal ji ñoo nekkoon ci biir tax ñuy falu waaye ñoom faam lañ santoon mu ni kon nag nañ ma moytu ci faal ba ci faam kon kon gis nga ni Cheikh Ibra moomu nag kon loolu moo ko indi woon daan beneen bi des Ndakaaru nag mooy sëñ bi xam day dem waaye day ñëwaat kon Cheikh Ibrahima war naa préparer retouru sëñ bi kon moo waroon mu dem Lambinaas wutal fa sëñ Touba kër teg fay dong def fay barak ngir di xaar retouru sëñ bi kon loolu mooy état bu ndar ndànd Ndakaaru ci résumé bu gàtt maam Cheikh Ibrahima nag Abdoulaye Ndour wax sëñ bi ni ko ni ko dégg naa fa turam waaye gisaguma ko mu bindu lettre jox ko ni ko boo demee joxal ma bii may wax nag moom sëñ Modou Lo ak seegut moo jiitu loolu dama cee bëgg andi mbirum Cheikh Ibrahima ndax ab Baye Fall buy waxtaanee yoonu géej gi la ca laal Cheikh Ibrahima moom war na ko leeral ndax am na ci solo lool Ah, bu ko defee nag moom moom Abdoulaye Ndour moom bi mu dikkee nag lettre bi nit njëkkay jot boo xam ne wane na ni sëñ Tuubaa mi ngi dëkk sàngam sëñ bi wax ci ay waxam mu leer Abdoulaye Ndour moom moo ko ëndaale jox ko Cheikh Ibra Ndar kon ci loolu nag waaye Mayumba moom diirub juróomi at ya fa sëñ Tuubaa nekk kenn ci senegal xamul ci sëñ bi dara ca pourtant sëñ bi daan na leen réer ñoom ay weer di leen réer at ca la ca Mayumba di doxi soxla boppam moo fa yóbbu boppam man ba ci actuellement ci jamono ji ku ñuy wax Moussa nga xam moo nekkoon ca barab booba ginnaaw bi làbbe yi dawee barab ba moom mu des fa Moussa nee na day gis sëñ Tuubaa jaxaraan foofu muy dox ci ndox mi ba benn bis mu joxoñ ko ni ko demal jullil ma ñaar rakk fee man mii di wax ak génn dama ko résumé muy waxtaanu géej gi waaye Moussa mooma jinney Mayomba yi jox nañ ko fa ceeb ak diwlin na nangam mu jox ma ko ma añee ko fa man jox ñu fa ndawal ak yi war a ànd yëpp ak i pizza ca il ba te booba jamono labbe yi daw nañ kenn dëkku fa te lii may wax lu am wetti wettiliku la maa ngi ànd ak ku ñu wax sëñ bu naa ma gisee ak sëñ naar jeng ñoo ñëpp ay témoin lañ ña ngi ci Libreville mbooleem waa Libreville nag xam nañ lii may wax labbe ak ñëpp daw nañ kenn destu fa li bi bi fii ne nii ñoo fay dem di jàng xas day sëñ tubaay ak di fa jàng alxuraan ak di fa feeñal ndami sëñ bi kon loolu moo ci nekk bu ko defee nag kon làmbar na googu nag nga xam mooy étape bi nga xam moom laa bëgg a terminer xam naa pour ñu tënk li des ci waxtaan wi euh, loolu bi mu amee nag maam Cheikh Rafal tamit rolam boobu am ci bi Ablaye dellusee ba muy dellu yóbbaale na ci njabootu Cheikh Ibra ñoo xam ne muy taalibe bu mel ni sëñ Ablaye Thiam niñ Ibrahima Thiam niñ ko waxee ak Ibrahima Basel ñooñu bi ñu demee nag ba àgg ci maam Cheikh Ibrahima Fall euh, moom ci la tàmbalee nag di yónnee ay courrier muy ñëw di fekk sëñ Touba fii loolu dëppoo ak tukkib sëñ bi jeex sëñ bi ci boppam tamit daal di wax sëñ Modou Dagante ko di ko demal wutal ma gaal ñu dem bi sëñ Modou Lo Dagana tàmbalee wut gaal jël ko defee nag kon bi nga xamee ne sëñ Modou Lo Dagana nag sëñ bi digal na ko mu jël euh, bagage yi di yóbbu ci biir gaal gi di fab bagage yi di dugal maanaam suuf si nag tàmbali di jooy nag ndax tàggoo bi sëñ bi war a tàggoo ak ak moom sëñ bi nag daal di xamal sëñ Modou Lo Dagana ne ko kon jàpp naa ne dem gi nag dootu mën a joot sotti ndax mënatuma muñ jooy yi jooy yi nga xam ne moom la suuf si di jooy nga xam ni melal nañ ni daal daanaka sëñ Modou Dagana nag da caa daal def pas-pasam rek fexe rek ba na muy mën a def rek ba xam naa ne ànd ak sëñ bi rek dugg ci biir gaal gi ci niñ ko mën a waxee ci tënk rek ci loo xam ne moom ak doggug muritam doggu gam amoon rek mu matale ca doggu googu rek ba ànd ak sëñ bi soobu ci gaal gi rek bu ko defee kon loolu moo moo daal doon ñibbisi sëñ bi nag mu jógee ci lambar ko nga xam ne c'est estimé à 280 kilomètres ñëw Libreville bi mu agsee nag ñam fa romboon di dem muy ñoom sëñ Namsa Keita ak Ahmadou Ndiaye ak Mamadou Mané ak ñooñu ñëpp nag ñu daal dajeeg sëñ bi nag bég lool ci dem geeg dellu si gi ñu tàmbali nag di tàggoog moom dégg nga keroog sëñ Moussa Ka naan keroog nag la waa libre bi yëpp dajaloo di yeddante maanaam ñoom ñëpp nag ñu dajaloo kenn ku nekk daal vraiment daal di am ak réccu lool ci sëñ moom lu tax taxawoo ceeg yooyu yëpp ñoom ñëpp ñu tàmbali nag di fasanteeg moom kóllëre ñii jébbalu moom ñii di ko jox seen i kenn ku ne dégg na Ousmane Gabon moom nga xam ne nekkoon na fii ay famille ci Daaru Xuddoos muy ñooñu sant Konte famille boobu nga xam ne seen baayam dañ koo jëloon moom sàkk ci takkal ko benn ticket envoie expédier ko foofu ngir mu ñëw fii ci jamono sëñ Mourou Moussa moom mi ngi woon fii ci Daaru Xudoos bu ko defee ñooñu ñëpp nag fasante moom kóolër tàmbali nag di ko jox euh, ay addi ak yooyu yëpp ci noonu nag ki sëñ Tuubaa di war ñëwee nag fekk na nag euh, moom sëñ sëñ maam Cheikh Anta dellusi woon na nag moom xam ni sëñ bi dina ñëw muy waajal loola waaye fekkoon na nag it ca njaal benn nga Cheikh xamoon dina ñëw ba baraagoon na ci Ndakaaru ci këram googu su ko defee murid di kon ñi ngi waajal dellusi gi kenn ku ne xam ne ni état bu Daaru Salaam boobu am gim am solo ak it sëñ bi bi mu dikkee la nga xam ne jëlee woon na ko ci tukkib géej gi lim bare ak suñu boroom ñàkk nangul gim ñàkk nangu mu dellu si ci biir Touba gi toog fi ngir tubaa yan bi ci boppam xañ na du ko fi waroon a mën a defee te njaaree mënta ñàkk nga xam ne sànnoo si la sëñ bi am juróomi fani koor ba juróomi fani koor yi muy weeru mat sëkk lu avant muy agsi fii ak jaar-jaar yim jaar ba nim dikke fii fekk si maam Cheikh su ko defee kon yaakaar naa ne ci ab tënk daal état bu Libreville lañ bëggoon indi ci rek suñu euh, suñu yenn ci ay gis-gis ndax xam naa émission yoo xam dañ ko tënk ci ay waxtu yu néew te jot geeg yooyu yëpp xaw a manqué du mën a indi lépp waaye buñ demaatee ci yeneen waxtaan xëy na dina am yeneen tamit yoo xam ni yu ci manqué la yoo xam ne bu boobaa dinañ ko ci mën a indiwaale ndax wax dëgg yàlla ci Libreville am na ci ay témoignages yu bare bari yoo xam mën nañ ko cee def dolli ko ci ñun def nañ Côte d'Ivoire tamit defoon nañ Grand Bassam def naa Dahomey tamit muy muy beneen dëkk yooyu yëpp ña fay màggal sëñ Tuubaa ba tey jii barab ko doon màggalee romb gi sëñ bi romb soxna Koura Fall ci Dahomey ci ci Grand Bassam ba muy dem ak ba këram googee tey ji jox ko sëñ Tuubaa mu doon kër sëñ Tuubaa ak beneen tamit tey ji roi booba nga xam mooy roi Toufa jamono kam jamono doon ak sëñ Tuubaa ak may waa beneen may tey ji sëñ Tuubaa ab bis boo xam ña ngi koy defal foofu ñoom ñëpp ñu di ca ànd ko defee yooyu daal mu doon yoo xam ne yii may wax nag yu yu léegi léegi la yoo xam ne yu teew la bu ko defee kon daal eh, yaakaar naa ni mën nañoo yem ci loolu ba beneen yoon soxna Awa bu ñu amaatee yeneen émission ñu gën cee yaatal waaw.